ministre des finances du nouveau ministre et Finances qui ak de ñi di wax euh, monsieur le ministre bala ñoo wax dañuy Serigne bi nga euh, Covid bi ñëw na bi 200 millions teg ko ci table bi dimbalee ko askan wi bi mu ko mooy daf ko def ba noppi gungee ñu gunge réew mi ci wax ak ñoom ñëpp takk masque te ñu sàmm li nga xam ne moom la ñu kër docteur digal yemut ci loolu bi nga xamee ne màggalu Tuubaa ñëw na coow li bari lool mais dafa wax président de la république nekku na sa xel dal euh, màggal gi dana jàll ci jàmm dara du xew loolu nag lu rëy la comme yéen ngi ragalaat ñu ngi lay wax nga waxaat président de la république mu waxaat ak moom ndax xam nañ ne bu waxaateeg moom rek wax ji mën jëf ji mën na saafarawu di sant it président de la république bi nga xamee ne génn nañ 1000 milliards pour Sénégal ci wàllu feebar bi gis nañu ne fi ngeen ko war a def moo tax boo toogee ak ministre des finances fierté la war a doon ci askan wi ndax tey mënoon nañ ne ñaar ñee toog dañoo lekk as alalu réew mi mais loolu kenn du ko wax da ngeen a jël alalu réew mi def ko ci askan wi ba ñuy dem ba nga xam ne dañ naan Sénégal tey ay ñetti cas lañu am ñeenti kaa loolu lu rëy la ci réew mi loolu dañu leen ci sant gërëm leen gërëm président de la parce que bi muy tàmbali ñu bareen ci doon coow tey ñetti doon coow kenn déggatu leen dañoo noppi ndax seen résultat moo leen noppi lool ñuy wax ne bu loolu jàllee nag ñu leen di wax ne euh, ñu ngi lay féliciter ci Touba liggéey bu rëy bi nga xam ne président de la def na ko fa ba Touba di Touba man fa laa juddoo ba fii may wax yow am ëppal naa ñeent ak nangam mais xaw ma benn président de la République bu fa tabax ab ab de ab hôpital xamaguñu ko ci président Macky Sall la tàmbalee li mu def Matlaboul Fawzayni la mu fa tabax rek doy na hôpital waxuma la nag beneen hôpital bi nga xam ne beneen hôpital bi nga xam ne actuellement nii parce que àgg na loolu ñu ngi leen ciy félicité ñi doon coow naan du àgg tey de rus nañ loolu it ñu ngi leen ci sant beneen bi it ñi leen di wax ne bëgg nañ hôpital yooyu ñu tabax nga xam ne mi ngi nekk Touba ngeen gën ñoo jàppale ci. ñi nga xam ne ñu ngi fay liggéeyee am na ci ñoo xam ne amu ay contrat la ñu yor wala am ñoo xam ne sax yoruñu ko ñu gën leen ci jàppale ba nga xam ne ah liggéeykat ya dana gën a danañ fa gën a mën a toog loolu dana ñu gën a yitteel tey loolu dana jàppale président de la république di wax it ne ñi ngi leen di wax it ne bu Bousso dëkk la boo xam ne amul poste de santé ci Tuubaal dëkk gi nekk ci ginnaaw ndaam euh, kii ci ginnaaw allié di wax ni Daaru Sawit bëgg nañ ngeen jàppale ñu ca ak parce que yooyu yëpp ay dëkk yu mag la yoo xam ne soxla nañ poste de santé poste de santé tuub gede gi it bëgg nañ ngeen gën ñu koo yaatalal parce que sëñ bi am na fu ñu ko fu mu joxe muy xalifa gede bi ñu gën ñu koo yaatalal te jàppale ñu it ñu amaale foofu ambulance loolu yitteel na dëkk ba trop loolu mooy li nga xam ne ay doléance la yu ma leen doon indil beneen bii nag sama bokki député yi laay waxal mbir bu jógee jógee ci loxo ñëw ci say loxo war ngaa xam li jóge ci sa loxo jóge jóge loxo ñëw ci say loxo mooy lan bis dana ñëw mu jóge ci say loxo waruñoo jël suñu ndomba député yi di ko xeexe ak di ko attaqué ay nit di leen ko xeexe surtout ay ministres yoo xam ne ay directeurs yoo xam ne Sénégal la ñuy liggéeyal loolu rafetul te waruñu koo xalaat am na ci ñoo xam ne sax dañ ci xeex ba ci attaqué policiers yi ak gendarmerie yi ci mbedd yi te loolu rafetul nañu respecté nit ñi ci suñu loxo la ñëw mais day jóge suñu loxo dem ci ay loxo suba dégg naa fii sama mbokk député bu taxaw attaqué maam booy jaawa te lu mu ko attaqué da ko doon jaay oto ne ko ma jox la oto ma jox la oto nga jox ma suuf maam booy jaawa lank tax mu ñëw fii di ko attaqué di ko wax wax ju ñaaw loolu rafetul parce que maam jo maam booy jaawa la mu wax dëgg la ci moom du ma jël alalu réew mi di ko wecc ko oto bu may war kon nag loolu nañ ko ba nañu bàyyi santaas yi di wax ak ay directeur ak ministre di leen attaqué loolu rafetul loolu laa am lu may wax maa ngi ci sant di it nag ni sant euh, Moustapha Ba ak euh, docteur seen maa ngi leen di nuyu di nuyu Ibrahima Fall ak mboolem ñi nga àndal jërëjëf